ñu déggee ñu wax ba yi Sall président de la république dégg nañ sax muy wax ministre yi ñu limogé naka lañu war a taxawee. est-ce que du dafa am un cas Diouf Sarr. wax ji loolu ah? journaliste yi man je je demande dinaa demande mu génnaat parce que biir wax Diouf Sarr Diouf Sarr a dit que bu Macky Sall doon dese benn militant ci àdduna man lay doon génn ci laaj dañ ko nëbb. il l'a dit. dañ ko nëbb nu ñuy nëbb. non il l'a dit kan ah, moo ko nëbb. je confirme ndax génnuñu ko. mais kan moo ko nëbb. xaw ma dama ne ndax génn. ca wax jama Diouf Sarr doon wax. Mm-hmm. wax nga ne bu mag Sarr gisee mm-hmm. benn militant. xaw ma lu muy def ah man politicien xaw ma lu muy def. mais il n'a pas été loolu wax na ko. am na droit ko wax loolu. mais lancer aussi un mouvement on a vu un mouvement boo xam ni. beesul de je vais pas porter de jugement comme li ma la doon wax. waaw man jàpp ma man néew ma du bàyyi de du ma ko wax. jàpp ma kaa mais góob ma Diouf Sarr bàyyi Macky Sall. mais bàyyi ma mu wax. damay bett jéggi jàpp ma ma kaa Diouf moom mooy kaa Mimi Touré. Uh-huh. Mimi Touré wax na ne d'accordatul suñu doxalin ba génn na sax suñu groupe parlementaire mm. Abdoulaye Diouf Sarr est toujours dans le groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar Abdoulaye Diouf Sarr est le premier et le vice est un vice le vice-président au niveau du de l'Assemblée nationale Abdoulaye Diouf Sarr kóllëreem diggante mag ak président Macky Sall waxaat na ko wax na ko am na droit bàyyi itam bu ko neexee mm-hmm. sama waxu dem mooy sama waxu tey depuis ci Aïssata Tall ba tey le militantisme kenn du ko seetal kenn koy àndal jënd carte kenn du ko xoolal kenn waaye nay rafet lii laa wax bu la neexee dugg ku la neex nga ànd ak moom par rapport ak idéologie wala gis-gisam wala doxalin bu la neexul ah, bu la neexulee nga génn bu la neexulee nga génn waaye ah, doo ah, génn ba pare nga xarab ñi nga xamante ne da nga leen bàyyi nga xam ne comparaison buy am ku jóge PDS dem affaire garaaw mais mais quand on entend euh, Ablaye Mbow Ablaye Mbow Bamba Kassé quand on entend je suis la seule femme mais non non non mais mais ah, dafa mel ni dafa mel ni ki nga dendal ki nga dendal nga xam ne yéen a yéen a gën a jege yantoo moo la moo la gën a felesu <laughs> malal moom felesu laa ab ki nga dendal moo lay felesu mais Ablaye Diouf Sarr quand on entend dire quand on entend dire que ñi saboté campagne am pratiquement la ñu promouvoir à Dakar mais on se pose des questions effectivement les gens peuvent se poser des questions Ablaye Mbow Ablaye Mbow yow yow gis naa ni bëggoo ci